amalee sa su nekk mercredi et dimanche gis-gis dellu siwaat na tey ànd ceeg suñu ay chroniqueur mi am te ne yéen yéen leen safo daal di leen tàmmu gis-gis nag la ñu wax ku nekk ak sa xalaat tey ñu dellu si ak yéen ci beneen thème ba ci kanam tuuti père dina ñëw daal di koy wax mais laata loolu damay nuyu ñi nga xamante ne la bokk bokkal plateau en commençant par euh, l'aîné du plateau suñu oncle suñu xarit oncle Ben bonsoir Benoît. bonsoir Fama. vous allez bien. ça va sant yàlla baax. maa ngi lay nuyu euh, di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne tamit ñoo taamu seetaan gis-gis mais bon di euh, am tiis boo xam ne daf ma dal muy sama benn euh, doom sama neveu sama cousin sama lépp ñu koy wax Babacar un jeune de quinze ans génn àdduna à la SICAP Liberté 5 mm. ma koy jaale la famille de Babacar Gueye di koy jaale papam Ngorba mm-hmm. ak sa maman Anta di koy jaale la famille Keita bu mère Alima Keita muy tiis boo xam ne franchement metti na. à fleur de l'âge mais à xale bu baax yaru. mais ñu jël lépp rek teg ko si loxo yàlla yàlla moom bu soxla ñun ñëpp ñu ñàkk daal. et euh, di koy jaale tamit sama doom bu jigéen tuuti parce que dañu attaché woon ñoom ñaar. xam nga donc euh, muy tiis boo xam ne daal dal nañu ci kaw. Mhm. et di nuyu Sénégal yëpp di ñaan yàlla émission bi ñu def ko si jàmm. incha allah di ko jàllee képp ki nga xamante ne waajuram la mbokkam dëkkandooram yàlla na yaroom boobu nga ko seddeel yàlla daal di ko koy fay daal di koy at ci àdduna fi daw si di jàllee képp ki nga xamante ne rek ñàkk nga proche ndax da loolu dafa metti yàlla na jàmm yàgg Sénégal Sophie nuyu naa la fay naa la alors maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi di nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV particulièrement ma famille et tous les membres de l'association Les Racines de l'Espoir asalaamaaleykum. maaleykum salaam toute jolie hein. merci beaucoup couleur rose bi dafa nice. merci c'est <laughs> gentil femme. Arona nuyu la yow tamit bu baax a baax am plaisir bokk ak yow plateau. merci beaucoup femme nuyu naa la maa ngi nuyu aussi euh, ñi ñuy seetaan ci télé bi di nuyu aussi yéen ñi toog ci plateau bi aussi di nuyu. tous les anciens élèves du, des cours privés Gaïndé Fatma ak du CM Fadilou Diop ak du lycée de Thiaroye parce que bon fa lañ jaar te ñoom it def dañ ni dañ ni faral di safoo saa su ne donc ciy baax aussi ñu leen di delloo ñu leen di delloo nuyoo boobu noonu. Mm-hmm. merci beaucoup. merci beaucoup tey nag yóbbu nga ma ci de ah? <laughs> waaw. asuf ah, bi ñu ngi Tiwaawan. mbaxane da baax beeg yëpp. mais am na lu yeegaalewul. Ah. ah ba ñu ñëwee ba tey mënuñu ko sax nuyu ndax dëgg la. yeegaalewul. Ah, waaw bu ñu fàtte nag. mi ci poos bi ñu ngi bàyyi après ñu yeegali ko. waaw incha allah kenn du fàtte bu ñu fàttee ñu ngi ci mois bi donc yal na yàlla wàccee xéewal ak jàmm biir Sénégal. Mm. Euh, ci barke Bourdou bi rek comme ubbi na. waaye mm. tamit dañuy bokk ak plateau tey suñu invité ñu koy wax Ibrahima Diallo ñu bàyyi ko mu nuyoon spectateur yi Ibrahima na nga def. salaamaaleykum Sofia maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñoom bokkal plateau yëpp. Mhm. maa ngi nuyu waa si rapport ak waa bopp ak waa ñaar tali. ak sama yaay. ak sa yaay. macha kon ñu ngi nuyu yaay yi fidèle téléspectateur gis-gis dellu si na tey ci beneen thème comme ni ñu ko waxee mais yéen tamit mën ngeen bokk ak ñun euh, li nga xam te ne moom mooy seen gis-gis seen xalaat ci 88 628 89 90 ngeen bés 2 pour euh, accéder rek euh, daal di yegg si ci ñun waaye itam mën ngeen def 88 628 28 28 pour daal di dugg si rek yéen ñuy suivre aussi nous sommes en direct en ce moment sur Sen TV foofu tamit seen réaction dinañ ko yéegal euh, à de fur et à mesure donc euh, ñu ngi leen di gàttal seen teewaay le champion nag waa euh, le roi des arènes barka borom Tuuba am na fan si ak supporters yi yow la ñaan ak ñoom laa laaj ne leen mhm. kaana mhm. moom kaana mhm. ma rindi fii wala ma rindi fii comme kaana la loolu lay dund kaana mooy ña nekk États-Unis d'Amérique saa yu amee lu ko naqari dafa naan tëj leen quatre-vingt-dix-neuf ans <laughs> xam nga yooyu am foofu ay hmm. quatre-vingt-dix-neuf ans yooyu nan lay tëjee ak looloo am foofu ci kaana yi moom nag dundu kaana moom la bëgg a jël imposer ko ci réew mi ba sax il faut faire très attention suñu sañoon jigéen dina jiite réew mi ñoom ñii ci tànk yooyu nan nekk bari ci loolu mën na ne nag ah mën naa nekk dégg ngeen <laughs> barke borom Touba dama koy génne yow pexe su jubee. non kii dama koy génne bu ma doon jiite réew mi dama koy génne yor ko di commandé dama koy génne réew mi kii. su seeni pexe jubee te ñu ngi ci ay tànkam nag yéen ñëpp yéen ngi tëdd nelaw. sëriñ seeg ñëpp ñu ngi noppi mais soo xoolee lii raam ci ñag bi la jëm seeni pexe yëpp mooy nu dem ba jigéen yor te doon joo xam ne góor dootu ko mën a yilif ma laaj góor dootu ko mën a yilif ci loolu na nekk papa wooyu waaw bàyyi ma laaj la dara depuis sañu indépendance ba ba léegi ay góor rek kay jiite Sénégal waaw léegi nga bëgg lan dara baax na nga bëgg lan ma ne ndax dara baax na nga bëgg lan on benn bu la mënoon naqari damay jël réew mi génne ko bu gàddaay Japon jigéen jiite réew mi bis góor am fi baat réew mi ba léegi dëgër fi jox leen jigéen ñu xool lu mu wax ci nañuy jaar génn ñu mel ni yow ci loolu ci tànk yooyu nan nekk réew mi moom nañu bëgg a jël ëlbati ko soppi ko indi ci beneen culture boo xam ne jigéen leen jiite day bari doole surtout la ma gën a jaaxal ma gën cee waaru keroog moom mooy le gynécologue le soi-disant gynécologue. yow doo bàyyi ko le soi-disant gynécologue mu ne jaamu leen seen i jabar waa topp leen seen i jabar dégg nga góor day war a jaamu jabaram. mais en tant que gynécologue di góor. Pape ko ah déggoo ko. waxin la déggoo ko waxin ban façon waxin. moom moo ko wax jaamu leen seen i jabar. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. bu Bougane Gueye Dany sunu borom yàlla na la tingoom ba ñëpp seen la te dara bañ koo yàq. ci mm-hmm. barke borom Touba Mbacké. le président Macky Sall yàlla na nga am jàmm. Mm-hmm. Ousmane Sonko liggéey ma bët yàlla na ci jàmm mujj ci réew mi. mi mm-hmm. Diaz lépp loo def yàlla na sunu borom xëpp ndox mu sedd guy ci barke borom Touba Mbacké. yàlla na jàmm rek um upp ci réew mi. Ah. ku ci sa wërsëg nekk yàlla na ko jël. amiin ci barke borom Touba te muy li gën ci yow. ci barke borom Touba mënoo hmm? ànd ak ñëpp ah ànduma ñëpp damaa ñaanal ñëpp ah, jàmm li ñaanal ki nga xam ne man kan laa àndal ah, ma ñaanal kan munoo àndal jigéenu Sénégal lay am de su ma dee ah? ñaanal kenn laay ñaanal jigéenu Sénégal lay am ñi mu lim yamu ci kenn dama ne su ma dee kii ñi mu lim ni yamu leen jigéenu Sénégal yi vous n'écoutez pas Sénégal yi yàpp nga leen non il faut me mettre en mal avec la société waa négal waa négal teggin la wax ak ñoom gisoo nga ko bugaan ngay daan ni président Macky xoolal ni mu waxee. dara nga la féete de xam nga kay du ma nagal. Ah. gin naa ci barke borom Touba Mbakke. barki de moo Ndiaye dégg ngeen genn gu ne xonq ci mu ne lépp lu ma am te du ma ko bokk waa réew mi yàlla bu mu dugg samay loxo. kooka la yow. lu ma la loolu chaque jour. dama ne su la jegee nga indiwaatal ma ko maanaam. benn waay moo ko wax. monsieur am na ku ko wax mu ne. lépp lu may am te duma ko bokk ak waa mi yàlla bu ma ko am am na ko ko wax. politicien la. Mm-hmm. xaw ma de ndax politicien la. non non non kooku du politicien de. du non kooku c'est un travailleur. travailleur la. si si je me trompe sa bopp sama yoon nekku ci daal su ngeen ko amee. indil leen ma ko. mais su ngeen ngeen bàyyi. ñoom ñëpp il politicien. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax ndax un politicien. boppam ba kenn du ko trahir. dina ñag boppam ba kenn du ko war. dina ñàkk boppam ba kenn du ko piéger. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax donc il n'est pas politicien. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax mais ñoom am ngeen ko génne leen ko. mais wax ko yow xanaa ñeme woo wax kan la dama koo xamul dama ah, koo dégg. mais boo ko déggee nga xam ne trop. avion présidentiel ko dañ koy jaay nit ñi. booba ñu ngi jàpp ne waa ji moom mu ngi wut a gundaandaat malheureusement dañu am ñoo xam ne c'est des complexes eh, ñuy defar dàll koo ci dégg tey Sénégal mu ngi ngal-ngali ci ñooñu ñaari passeport la man aw ma beneen nationalité aw ma compte bancaire ci benn réew lu ma am mu ngi ci réew mi lu ma nattu la bokk ak waa Sénégal yàlla bu ma ko suñu borom jox askan politiciens yëpp lii la ñuy wax. déedéet dafa ne lu ma am te du ma ko bokk réew mi yàlla moo ko am. ñoom ñëpp loolu la ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. ah waaw yow kan nga dégg mu wax ko ñoom ñëpp. kan mosoo amul ko am lii. arrête waay yow léegi amul kenn ku ko wax liñ lay wax dañ lay wax. Ah? sama ah? réew la am sama réew la dama ne depuis que le milieu politique et politique jusqu'à présent gisoo kenn ku osé taxaw ne lépp lu ma am aussi ñëw dama ne gisoo ci ku am fitu taxaw ne gisoo ci ku am fitu taxaw waat waat kirlu ci sunu borom ne lépp lu may wut te su ma ko amee du ma ko bokk réew mi yàlla bu ma ko am. kon yow ko am fi duggal. premier ministre la toppee bugaan jigéen du jiite réew mi wante premier ministre doo ko dégg de. dama ne doo seetaan politiciens yi kon. dama ne lépp kaay toog ba kan moo mës a wax loolu. ñoom ñëpp ba ba kan si fan ku si bëgg dara da ngay ne kan moo am slogan boobu ma ne ku si bëgg dara da ngay wax ni pour réew mi te du ma ko bokk réew mi. yàlla bu ma ko am. léegi xoolal Pape loolu dañ koy def parce que lu ma nar a am te du ma ko bokk loolu mooy la partage. waaw doo def lu dem si loolu ah, partage loolu mooy partage lu ma nar a am te duma ko bokk ak réew mi ku ci am fit rek dugal nga waat loolu ku ci am fit nga taxaw assemblée nga taxaw présidence nga nekk opposant nga nekk lu mu mën a doon ku ci am fit rek suba taxawal ne askan wi maa ngi leen di tàllal loxo je bu tends la main du cœur lu ma nar am te du ma ko bokk ak yéen loolu yàlla bu ma ko am ci barke borom Touba ku ci am fi def wax ko comme ni ko gune gi waxee. Ah, non père ci père bi quoi. sëñ Touba Cheikh Abdou Ahad dafa ne Abdou Diouf. sauf que bu toogee du ah. mu moom. ba kër bu toogee suñu alal lañ koy jox mu ne yorum réew man daara laa mën a yor ak mbooloo. daf ñuy liggéeyal daf ñuy jox soo bëggee ma noppi. ma noppi waaye léegi papa lan mooy thème bi tey. ndax xam nga dañu guddee nag d' accord mais bu bëggoon naa egg li lii lool waaw non nañu yegg waaw ndax sëñ Touba Cheikh Abdou Ahad moom moo ko waxoon Abdou Diouf mhm. ne ko man de xaw ma nan nañuy yoree am réew ndax jànguma waaye nag mën naa yor mbooloo sañu alelu réew boo ko yoree te partagé woo si def xam naa nu ñuy mbooloo déglul de ma ne sañu alelu réew boo ko yoree te partagé woo nangu koo wuti sénégalais noo koy nangu koo am nangu koo oomle nangu koo indi nangu koo séddale nangu caa gën a néewle waaw duñ dem si thème bi. est-ce que xam nga loolu. te naa kaa lire en français. non nañ dem si thème bi waaye parce que ñu ngi may wax. boobu prostitution. prostitution déguisée. déguisée. plaisir et argent mal acquis. mal acquis. Mhm. mu ne maanaam gàncutu ak gàncutu goo xam ne looy nëbb la. Mhm. ndax gàncutu la da nga koy nëbb nag fesul amoo carte amoo autorisation ndax dafa am gànc. am gàjjaañeer gànc gi su ngeen wéetee mën ngaa jàpp ci loxoom yóbbu su ngeen wéetee mën ngaa wax sa wax ju neex ba mu nangul la waaye buggul ko ko xam gàjjaañeer gi dina def bii dina def bii ñaar yooyu yépp dina ko boole. <laughs> ah gàjjaañeer dama ne da may bàyyi ma eggale walla ngeen ngeen kii ngeen. maa ngi waaw. gajangeer gi dina def bii dina def bii te du nëbbatu. bon foo ko fekk ci mbedd su la neexee nga jàpp ci loxoom yóbbu nëbbatuwul deful dara. bala ngeen di dangeen di waxaale ba juboo ci kawi kàddu nga yëkkati fay ko. gànc gi comme lii waxtaan waxtaani léegi. muy prostitution déguisée bi kooku day nëbbu. buggut ko ko xamal dara maaseeg ñëpp di dem xew di duggalanteeg doomu aadama yi di yéeg a ko wàcc di dem fu nekk waaye fu mu wéetee soo bëggee ci moom dara su ngeen juboo mu am ko dina ca am alal dina ca yóbbu ndeyam màkk mooy un bien boobu ngay wax dina ci jël logement dina ci jël appartement dina ca fay courant dina ca yor këram dina ca yor ak njabootam dina ca yor ay mbokkam c'est un bien mais mal acquis ñu ne dina ca am am koom dina ca amit plaisir ndax bànneex nee na dina ca am bànneex dina ca am am koom waaye ci anam yi sunu borom gërëmul un bien mal acquis mooy nga am ko ci amin wow sunu borom gërëm ko te nee na bari lool ci jamono ji nu toll. loolu wax naa leen de nee naa la gànc lay doon waaye boo xam ne day nëbbu waaw loolu mooy gànc gajaneer dina def bii dina def bii làqatuwul bala ngaa digaale ak moom danga koy fay su ko neexee taxaw ci mbedd bi koo koy gajaneer mais kii ak gànc la goo xam ne nee na ci biir nit ñi maase ñoom yiw ñemewu ko dut baaraam kenn ñemewu ko ko wax waaye nag daanaka soo xoolee lu ci ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp ci yooyee lay dox saa yoo waxee wax ju neex su ko jaralee mën ngaa jàpp yóbbu soo diggaaleeg moom nga fay ko wala soo ko fayul mën nga tamit lépp loo wax ak moom ba nangu mu nangu ci anam yoo xam ne consensus am na su boobaa mën na koo diggaale ak yow waaye daf cay am dara de dina cay tukki dina cay am am koom dina ca am ay kër dina cay am teraanga dina cay terle mais ca loola la koy jële maa ngi nuyu ñëpp nag sama sang ba Cheikh Mouhamadul Abib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman di nuyu Abdou Fall kan plateau mairie ginnaaw raay di nuyu bu baax a baax. Ah, ma ngay wax nga thème ba pare doo bàyyi. ma ngay jaay mi ngi nekk pàkk làmbaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye Khadim Niass le grand mécanicien poste Thiaroye yi taalibe seen Cheikh Abdou ibn seen Cheikh Darou Rahman maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñoom aam ak xale yëpp fàttewu ma maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di ñaan jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim mm-hmm. di ko ñaanal ñëpp di leen war ne nag tey laay def meilleure émission mm. bi doon xaar tey jii la macha allah meilleure émission ndax xam ngeen ne nag ODIHR bi mi ngi ëppee Europe les États-Unis d'Amérique kenn nelawutul fi mu ne. fii am na ñoo xam ne ak lu mu guddi guddi suñu naan day dem ba suba tey doon taxaw xaar doon taxaw xaar ñu ngi fii ci biir réew mi du la nelaw mukk te gis-gis jeexul mais daal waa bitim réew maa ngi leen nuyu bu baax di leen xaar pour ngeen dugg intervenir. incha mm-hmm. allah ci anam ngeen ko gisee nag ndax gis-gis nañu wax ku nekk ak ni mu ko gisee. les anciens élèves de l'école de Saer Sarr Papa Ngom Sédiment yéen man maa ngi leen nuyu fàttewuma kenn ken kenn Doudou Assane Diop Mayacine Mar fàttewuma kenn góor gi si Dieng fàttewuma la Famara Diédhiou fàttewuma la Wali Bala ko fàttewuma la top ça commence. ah top ça commence. waaw mooy en face jusqu'à l'eau. yow sax laa bëgg ñu doore. ndax euh, am na léegi ku ko wax ci commentaire yi Cheikh Ahmed Cissé. Mhm. nee na le plus vieux métier du monde est l'un des métiers qui a plus de succès en ce moment. c'est quel métier ça mooy la prostitution déguisée. <laughs> waaw te sax da nga ko wax ci sa biir yi wax. Mhm. waaw mhm. c'est un bien mal acquis. te dañ koy làkk. ndax lan te ñi ciy teral di ci yóbbu seen waajur yi màkk ak yeneen ak yeneen am ñoom te ne seen propre besoin lañ ciy faj lu tax mënuñu koo fësal mel na ñeneen i kon. waaw nu fësal ko naam sunu borom bëgg ko de waaw genn ñàkk kersa gi won sunu borom ne maa tey naam bëgg ko waaye nag sunu fesoon ba nit ñi xam leen mën leen a ràññee ngir mën a daw feebar waaw opp dem ko cay jëlee mhm. genn mooy gi genn mooy gi su mettee ba metti ba metti ba metti ba metti sunu borom di dugal balaa teg opp joo xam ne dootoo ko mën a faj ci këru àdduna kon ñooñu suñu leen ràññee woon ba xam ne ñii kat actuellement ce n'est plus déguisé doon na la fës ne yàlla maa ngi nii adduna maa ngi nii ngi nii naam dina am ñu daw riir wuti leen ndax iblis moom foo fekk am ndajeem faaw dina am ñu ca bokk waaye nag dina am ñoo xam ne dinañ leen ràññee ba mën leen a moyu mais ñàkk ràññee boobu est-ce que tam du mooy andi. ñàkk ràññee bi moo indi musiba mu bari léeg nga gis sax ko ci takk léeg-léeg gis ko ci takk. Hmm. waaw du ko da ko dul xam. du xam kii lu mu nekkee du xam lu muy fanaane te fekk ne moom ma nga ca boppam doon secret boo xam ne mel ne sàcc boo dëkkandool mën na laa roñ ba nga jeex te doo ko xam sàcc bi nga dëkkal xam na waxtu wooy jóg xam na waxtu wooy dem xam na waxtu wooy ñëw xam na sab denc xam na lépp lu mu mën a demee ci këru àdduna nekk ak yow soo jooyee mu jooy soo tëddee mu tëdd soo ree mu ree soo jógee mu jóg sooy topp ab sàcc bu jóg ànd ak yow di topp sàcc bi te fekk moo la noonu lay mel <laughs> jigéen ji mën naa nekk yow di la war du man dama sérieuse di defaru yem te fu mu wéetee la muy def doo ko xam muy kumpa nga jël ko mu doon aw lumb ndax ne sax la aw sax la de aw sax la de doon yi def ba dootuñu ko tey moo tax mu ne comme dorog la bul mos bul laal mm. bul jéem bul xam soo xasee ne cuut benn yoon nga def ko encaissé lekk ab xaalisam jeex na mën nga caa laaj bi hmm? waaw sunu borom moo la koy nattu xaalisam doomu soo nee cuub nga ñam ko ñu def la ko ba pare ëlbatiku jox la nga encaissé lekk jeex na dorog la dootoo ko bàcc këru àdduna fu sax lu yëngatoo rek aw lumb la di nga jóg ko wuti kooku day am naan ko ooy pub sër nga am boroom kër ba pare di ëlbatiku nu koy doxee ca suuf tey nu ko Hmm. déedéet aw sax la lumb la baaxut bul jege bul laal soo ko defee benn yoon rek dootoo ci mucc ci àdduna moo tax nu koy bañ ku ci am dara looy contesté dugal en kaana waaw yow koo àndal kii di nga jël jabar ju mel noonu kaana doo seddale kaana da nga jël jabar bi mel noonu. doo toog bàyyi ma après waaye kon nag peut-être du ko xam. Ah? léegi xaaral ñu ñu ñu. non moom nee na même su ko xamee amul benn problème. nee na su ko xamee. Ah, nee na xam góor gi xam góor gi xam góor gi. wax na ko démb nee na moom da koy takk. barke borom Touba Mbacke moo ko wax. waxu ko dem. dina si ñëw ba dina dina ci non fii la nga xaw a wutee ak Sofia Sofia danaan waaw moo ko wax waaw ah da ngaa ragal da ngay def comme Sofia léeg-léeg nga ne waaw moo ko wax moo ko wax waaw barke borom Tuubaa Mbàkke moo ko wax démb te te dëgg la dama la wax mais moo ko wax loolu rafetal gis-gis na lu wax fi mu ne am na ñu lay seetaan ñoo xam ne dama bëgg nga percer def un piercing waaw waaw dama bëgg nga def piercing da ngay oser ñeme taxaw wax li moo ko wax neel moo ko wax doo may nit ñi ñu wax. léegi Pape noppaleku nii. yii man. xoolal ñu man je suis un athlète je suis un athlète de très haut niveau. ça c'est vrai waaw gisoo ma ni ma taxawee. parce que dama bëgg a laaj suñu invité Ibrahima Diallo euh, un peu gis nga sujet bi tey prostitution déguisée le plaisir argent mal acquis.